dana nag bi gën a metti te Cheikh na Cheikh naa ma wax ko te ñun ñëpp ñu war koo bàyyi xel nee na li ko gën a metti ci Sénégal mooy guerre médiatique bi ñuy def bañ Souleymane rek wala nga bañ Diack rek wala nga bañ Omar Diawara rek tax nga jël deram dugal ko ci WhatsApp audio ko di yàq deram yóbbu ko Facebook yemoo foofu yóbbu ko internet wala ngay wax ci lu bon loo xam ni xamoo ko ci Ndiaga xamoo ko ci Omar Jaafar na Cheikh ma nee na bàyyi leen guerre médiatique yi ngeen di jaar jaaree ci biir WhatsApp yi ak ci biir Facebook yi. wa qaala laa tazaalu ummatii alaa xaqay. nee na sama xeet yi mukk du ñu dañ mukk du ñu dañ mukk di nekk ci lii may bëgg a wax. maa daama kabiiruhum yarhamu sagiiruhum. xale yi nee na yërmande rek may wàcc seen xale yi tam bu leen mag ñu joxee cër rek waaye xale yi góorgóorlu leen da ngeen jox ma ñu cër xale yi bu bëggee gudd fan ni ko wala waxee day jox mag cër. qaala sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax. zaakiru la yusaab. nee na ci nga kuy tudd yàlla fa mu toll. nee na benn lu lo luy lore lu wàcc ci kawam kuy tudd yàlla fa mu toll luy lor nit di ko gaañ. soxna soxna ma ne du wàcc ci kawam mu. qaala sadaqat tarfa al bala wa tazilu fi al-umar ndekete attention bari na lu ñuy liggéeyanti mu ñuy sonnal cheikh na cheikh naa ne dimbali la ñu ko naam ay dara mu ni mu ni tegtal bi jox mooy na la leer ni sarax sarax génne sarax def te yàlla tax nee na balaa naroon naa dal sa kaw ndekete sarax baa koy dindi kon nañu góorgóorlu di sarax waaye yéen na cheikh naa ma ne ne pourquoi nit ñi di am fit di xas te booy xas di tudd tur ab yonente ngay jël di ko xas yemoo foofu aali bayt rasul nga xam ne dañoo tedd di sëtu yonente bi te lislaam wax ci yonente bi wax ci amoo koo xas ku dul yonente bi yaa ñàkk ku ku xas alaaji Maalik balaa ngaa kontaan xas Serigne Touba balaa ngaa kontaan xas Cheikh na Cheikh Sadou balaa yow daal balaa ngaa kontaan daal nekk ci sa télé eh. lu la neex def ko di xas di xas nitu yàlla yi Cheikh na Cheikh naa ma ne lii mooy avancé doo Sénégal yemu leen ci loolu góor guy nitu yàlla bu deful dara jàpp ñàmbaram toog këram balaa ngaa kontaan nga yëkkati lu ñaaw jëmee ko ca moom nee na yemu leen foofu borom xam-xam yi xoolal ni ngeen di xas di yàq seen der ci ci internet bi yemuñu foofu ñu sell ñu baax ngeen leen jël di yàq seen der. wala taxtarimuhum te du ngeen leen respecté di ngeen leen ormaal. wala taatihum xaq wala taatihum xuquqahum li gën a yéeme mooy seen àq mag tey boo ko saraxatul ba koog yàlla seen àq du ngeen leen ko jox lu dul di yàq seen i der. wala saytinu bil aafiyati ah wala saytinu bil aafiyati ginnaaw loolu tamit lañu am jàmm. ginnaaw loolu ginnaaw loolee ginnaaw loolu lépp ñoom ñu am yàq ngëm ni ak ñaaw bu bon boobu ñuy def. sànni mag ñi xe xas nit yàlla yi xas yonent yi ñu jàpp ni ñoom ginnaaw loolu après Sénégal day am jàmm pourquoi lu muy amee jàmm. wal istiqraar wal aafiyya. ba pare ñu mi ànd ak dal ñu bëgg réew mi ànd ak sago mais seex na seex naa ma loolu leneen loolu mënta ne. gis nga laa wakal la nee na loolu bu dàq ñeent ci àdduna bi su ñëwoon sax mënta ne am ba loolu. nee na sa doomam ndey ga. moo lay tiim xoolal ne eh, sa gémmiñ xasaw na sa doomu nay la koy wax comme ni olof waxee. Sénégal waaye Sénégal bii. yàlla na fi yàlla def jàmm. fi yàlla def jàmm amiin. yàlla na fi fi xéewal. yàlla na fi yàlla def barke fi yàlla def xéewal. lépp lu Sénégal ragal yàlla bu leen ko yàlla wan. lépp lu Sénégal ragal yàlla bu leen ko yàlla wan. waaye Sénégal sax du am lu dul jàmm. waaye nag nitu teraanga lañu. nee na dëkk bii nitu teraanga lañu. nitu jàmm lañu. nee na dëkk bii nitu jàmm lañu. ñu bëgg nitu yàlla yi lañu. nee na ñu bëgg nitu yàlla yi. ñu bëgg yàlla lañu. nee na nag ñu bëgg yàlla lañu. ñuy baalu ñëpp. ñuy baalu ñëpp. góor jigéen mag ak ndaw. góor ak jigéen mag ak ndaw. kër gi ñëpp a ko moom. Cheikh Ndao ma ne leen jigéen kër gii. كيف سيدنا محمد بن يبقى أنزل علينا من السماء تكون داعيا لولنا وآخرنا وآية منك ورثنا وتخارصنا لنا من عمل الصالحات كانت جنات الفردوس خالد بن فيها فلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين